may delluwaat di santaat sama capitaine xam xam ni ngeen xam ni lépp moom la Cheikh Kouyaté ba dara dul dara moom rek lañ gisoon mu yëkkati ay millions yu bari te avant millions yi sax am na leneen lu ko jiitu muy piqûre yi premier jour ba ma woowee takk téléphone ma ma nekkoon match AS Pikine Casa dama ñëw wax ko sama yaay mu woote ma paas ko sama yaay paas jibi moom mënul woon sax wax ndax xool bu fees mu ne am na benn numéro léegi bulay lay woo dafa coupé numéro woo ma andil ma huit cent mille ma jox sama yaay ma xëy dem jëndi garab calendrier pharmacie Guigon fii mu ngi nii calendrier baa ni fii lañ doon jëndee di jënd chaque weer mu andi ration ak enveloppe quatre cent mille wala cinq cent mille boobu ba tey jii ba ba ñëwee match équipe nationale bi la ma jox sept million sept cent kon mën nañ ne feebar bi yàgg na. yàgg na kay. juillet 2016 la woon. 2016. 2016 ba 2020 ba. 2020. yàlla lii nattu yàlla la woon rek bu ñu yàlla teg nit ñi jàpp nañ si ba mu toll fii daanaka léegi mu jeex. billaay wallaay wa taala di wax ni gaa yëpp jàpp nañ ci ñëpp ki fi lim Aziz Ndiaye Aziz njaay ñu nañoo dem ba foofu. mu yëkkat xaalis bari jox ñu te dañoo yegg si wax ko ko rek mu ne seetaan naa ko ci kii bi da ngeen yéex a ñëw matu sax in mu dugg génnee xaalis bu bari jox ñu. mais tey jii maa ngi dégg ñu ne dafa war a génn dëkk bi faju ji. waaw ci loolu nag moo tax ñu médiatiser ko ngeen yëg ko après Cheikh yaate Ali Nguy njaay Aziz Ndiaye Ali Nguy Ndiaye ex ministre de l' ànd nañ fa ak mu jox ñu millions yu bari ñu andi Xaadim Jaañ bu bu teraanga ah at kan Doro Gueye Doro Gueye bu Waali Seck di waay at Waali Seck ak Njaga Euro at waa Euro bi yëpp at waa Chez Euro ñoom ñëpp at El Hadj Dembaka borom EDK chèque lañu bindal barki Serigne Saliou million yu bari at Aziz Ndiaye meen bu ma doon limal bu ma limaat fii at Boy Niang démb sama xel daf fatt woon ba ma yem ci Ama ak Boy Niang Eumeu Sène Sokh Jëlli Zoro Ondu la fu ba si sitam day nëbbatu mais woon a jibi si bàyyi pël Yékini Junior ñoom ñëpp dañuy dégganteeg jibi ñoo ngi ciy jàpp bu baax mobile moom mobile dañ koy baay yàlla mobile dafa def dafa def geste bu mu touché avant ñuy médiatiser affaire yi ba bañ ba cinq millions décès daf ma yónnee photo am whatsapp kii photo otoom bu ko may benn Ford la Focus mu ne ma Yelmine nañ ko teg ci marché bi jaay ko jarul ñuy woote ndax gars yi yëg nañ feebar ba léegi kenn ñëwul nañ jaay oto bi ma ne ko mukk bàyyi rek ñu woote dina baax incha allah mobile ne ma dugal ko partagé ko stat yi gars yi jënd ko luñ ma fay ñu jaay ko nax cinq oto bi dina jar cinq dina jar sept millions ba huit nañ ko jaay cinq millions def ko ci ma ne ko déedéet Waly Seck Waly Seck njag njaga euro xam nga lu wax moom lu mu digganteeg jibi wax te bëggul ñu médiatiser gu ñu wax ko Waly bërki démb démb la fi yónnee xaalis bu bari billaay wallaay waa waa chez euro ñëpp ñëw andi njaga moom ne lu muy wax ba ba gars yi fayee caméra yi la mu wax ma ko ma wax sama yaay mu ne man samay mbir du jëm kaw wax naa ko sama yaay sama yaay na ko ñu leen dellu di leen ñaanalaat seen jàmm yàgg